mu nekk loo xam ne ñu bëri ñu ngi koy ñaawlu ci xale yu ndaw yi di dawal saret mu mel ne lu munta ñàkk àndal nan mooy seen ëllëg sëriñ bi di xam le ne moom jafe-jafe yi ci parents yi la ndax ñu ci ëpp kenn jàngaloo leen te da nga ciy gis yenn xale yoo xam ne dañuy faral di ñàkk teggin seen kilifa yi ndax gone moom bu fekkee ne dafa toll ci jàng danga koo war a wàcc mu dem jàngi ndax saret yi gone yi amuñu éducation boo xam ne war nañoo mën a jël saret ñu wàcc ko xale yi ñuy dépassé seen moroom yi bàyyi ak seen mag yeeg yooyu yëpp jàngat bi ñu ci am moom mooy man responsabilité yi dama koy jël euh, jagleel ko lépp parents yi parce que xale bu ndaw boo gis comportement bu mu mën di amee dama jàpp ne dafa jege ci kër kër ga dafa bàyyi ndey dafa bàyyi baay dafa bàyyi aussi ay frère ak ay sœur li ma bëgg wax mooy dafa juge ci kër kon dama jàpp ne responsabilité bi njëkk moom mooy bàyyam ak yaayam. moom ko xale bu ndaw bu ko defee sa yàq sa avenir la. par exemple nii am na si parents yoo xam ne ñoo si d' accord parce que bu ñu d' accord doon tey jii ah, xale tey duñ si dugg na xale yoo xam ne dañoo të ba maam seen i parents sëriñ bi di xam ne ne moom jafe-jafe yi ci mën a am mën naa bëri lool ndax xale yi koy dawal saret xamewuñ digg tali bi ndax xale bu ndaw nga wocc ko ci saret mu koy dawal xamul li ko ci mën a dikk xamul li ko ciy gaañ xamul li ko ci arrivé te bu oto war na ñëw engagé ko xamul nu muy téyee saret bi xamul nu mu koy doxalee kon conséquence bi bari na. bokk na ci li tax réew mi mën a jëm ca kanam mooy ñu am ndaw ñu am xam-xam dama jàpp ne que ndaw luy war a jàngi jàngi woo dawal saret moom ëllëgu réew mi fan lañ jëm kan moo yor réew mi ëllëg kan moo yor comportement yi kan mooy kan mooy kan mooy jël relève bi ëllëg. parce que conséquences yi nekk maanaam mooy loolu saa soo dajee ma ci kaw tali rek maam di nga ko ñàkk teggin daal parce que am na yoo xam ne tegginewul waaw loolu daal laay euh, encouragé tamit parents yi pour ñu wax seen doom ñu dem jàngi métier ñi ci toll wa ilaa ñu dem jàng ji ci école ba. ni ñu yore saa ci kaw tali bi di yi wóorut ak yooyu oto yooyu. ki di xam ne ne moom comportement yu ci bëri ci kilifa yi la tey ñaax gi ñu gën cee jël seeni responsabilité bu baax ci parents yi la ci di di aussi euh, état Sénégal di ko interpeller euh, parce que dama jàpp ne que réew mi ñun ginnaaw dañu nekk ci réew moo xam ne réewu droit bi na xam ne na jël parce que comme parents yi li leen waroon dëgg-dëgg wala ñenn ci parents yi defuñu ko na état bi jël ay dogal yoo xam ne nii dañuy interdit bépp xale boo xam ne amoo maximum vingt ans jàpp vingt deux ans ñu interdit yow nga dawal sareet ak lu ci a xew xale yi dañoo war a jàngi ndax xale bu am cinq ans le dix ans mënut a yor sareet te lu ci ëpp ci borom sareet yi leen koy jox la